Euh, monsieur le gouverneur ñu ngi lay nuyu ci turi sëriñ bi di nuyu délégation bi nga ànd ak nga xam ne ñoom ñëpp ci kër gi lañ muy maître Nafissatou Diop ak Modou Ndiaye Rahma te ñu ngi ànd ak suñ jarbaat sëriñ Aliou Dem ak monsieur le préfet di nuyu délégation bi ngeen ànd ak yëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di rafetlu seen taxawaay euh, di leen jottali tim Euh, nuyoo sëriñ bi ci président ndax moom ngeen moom ngeen euh, teewal euh, ku teewal nit wàcc waayam lañ lay wàccee di nuyu itam suñ mbokk Mouhamad Habib Niass nga xam ne mooy mairie Taïba ci yéen la bokk waaye nag moom moo leen di gàttandu fii di wax kontaante ci seen jéegu yi nga xam ne yéen a koy jéegu di jotal tim nuyoo sëriñ bi ak ndokkeelam yi nga xam ne jiitu na ci président ndokkeel goo xam ne ba mu koy def président boppam la doon ndokkeel ndax ba muy ut ñaanal na ko taxawu na ko jàppale na ko mu ngi koy continuer di ko ñaanal lii nga xam ne mu ngi ci jëm yàlla may ko tawfiq ci gouvernement bu bees bii mu jëm may ko tawfiq ci tànn may ko tawfiq ci àndandoor yu baax may ko tawfiq tim ci mën a servir sénégalais yi nga xam ne ñoo amaat ci moom beneen yaakaar ba fal ko dafa mel ni sax ñu ngi koy door a fal ndax yoon bu njëkk bi dañ doon folli rek indi ko waaye yoon bii dañ koo tànn loolu nag dëgg-dëgg en bu diis la waaye ñi ko ko en duñ ko ko bàyyee ñun xam nañ ne état benn nit du ko defar ñaari nit du ko defar ñëpp ñooy ànd di ko defar waaye rek ñi ngi leen di bàyyiloo seen xel ci lu ngeen fàttewul ndax junju ngeen ko yoon wii ngeen jaar nga xam ne moo jëm ci bañ a seen bañ toogeeg président tuddoon nañ ko ko ñi ngi fàttali loolu bëgg nañ daal déwén bu ñuy ñëw ci gàmmu gi ñi am fi yoon boo xam ne yoon bu baax lay doo bu mokk lay doo bu yomba jaar lay doo ñi ngi fàttali président yit ne ànd nañu moom ci mbooleem ñi am am nañ ay doom yi nga xam ne lépp lu gouvernement soxla am nañ ci xam-xam ñi ngi bugg bàyyi suñ bàyyi xel ci ñooñu waaye li ci des muy wàlli ñaan ak taxaw nang nga ko waxee président doom la ci sëriñ bi te wane na ko wane na mbëggeelam ci Kaolack wane na wegeelam ci kër gi wane na mbëggeelam ci kër gi waaye kër gi ñoo ko gën a bëgg keroog ba mu ñëwee yoon bu mujj bañ duggee ci néeg bi maag sama rakk Mouhamadul Misri ak sëriñ bi dama ne ko président démb ba ñuy laam-laamlee da nga ñëw wala doo ñëw man benn baat rekk laa wax mbëggeel gi waa Kaolack Medina bëgg président fekkee loolu mu ngi ci xolam bi rek dina ñëw ma ne ko man loolu rek laa waxoon waaye sa ñëw bi confirmé nañu loolu ñu ngi sax tim àndaat ak moom di ko ñaanal ci yim jëm yàlla dimbale ko yokk xelam yokk xam-xamam boole ko ay liggéeykat yoo xam ne duñ yàq ñépp ànd liggéey réew mi ba mel ni nga xam ne moom lañ bëgg loolu la sëriñ bi ñaan loolu la njaboot gi di ñaan loolu la taalibe yépp di ñaan xanaa da ngeen a ñëw waxaat ko ñi dellu di confirmer ñu nit suñ taxawaay waaye fañ taxawoon démb taxaw nañ fa wala fu ko gën a dëgër waaye ñu ngi leen di ñaanal tim yéen ñi nga xam ne dëgg-dëgg yéen a nekk fii ci raison bi utu ko te rafetal seen taxawaay ci njaboot gi ñu ngi leen di ñaanal ñëpp di ñaanal Sénégal yàlla may ñi Sénégal yi jàmm Sénégal bi nga xam ne nii dëgg-dëgg xol yëpp ay ànd pour gëm ne réew mi ñoo ko bokk ñun ñoo ko mën a liggéey Sénégal goo xam ne danañ paase rek kii parti bii la nekk kii parti bële la nekk paase nañ foofu fi mu ne voté nañ ba résultat yi génn nañ léegi ñun ñëpp benn parti lañ war a am mooy parti bi defar Sénégal yàlla na ñëpp dégg loolu yàlla dimbale ñu ci loolu. du jeexal lu may danaa delluwaat ci. parrain bi nga xam ne moom lañ tuddee bés bi muy Cheikh Aboubacar Serigne mbay mi nga xam ne ni ko Baye waxee suma nijaay nijaay Seydi Ali wax na ko Baye waxoon na ne ala rahimal ilahu axi wa xibbi ababakarin fataaya wa rasa sahbi loolu la defoon ci ci marsiyaam ki nga xam ne mooy sama fero mooy sama jàmbaar fata duñ ko firi ndax dafay jël suñu waxtu waaye ki nga xam ne mooy njiital samay taalibe yi ndax moom mooy bikrul faydati moo njëkk a àgg ci loxo moulana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu te mbokk gi hiirut ko dara hiiru ko dama taxaw ci benn xitaa bu mu def ndax sëriñ bi moo ma fàttali ci oto bi ne mbaa fàttewu leen ne suñ bàyyi sëriñ mbay lañ tuddee bés bi ma ne ko loolu kenn fàttewu bàyyi dafa dugg bato mu xool bato bi ne bato bi qultu lil fulki wa hiya fil bahri tajri فرويدا من بحر علم مقيم من باي دا فا دغو باتو خمنا تاريخ لوني قطابي واي مل من ام واي باتو بيم نك دغو يالا خم واي رك باي دغو نا باتو فير گيم فير تي موم اك بڬ گيم كو بڬ من باي دغو نا تي باتو بي باتو بان تي گيج جي من من من باتو yang ci geej gi di daw waye mang lay bayyi lo xel ci koo xam ne xam-xam la mo tok ci sa kaw mang nan bato bi qad tahammalta ruuxa kulli waliyin wa safiyin wa aarifin wa xakimin maa ngi naan bato bi defal ndànk gis nga kooku nga enu moy roxo walu yàlla yeb kooku nga enu moy ki yàlla selal kooku nga enu moy arif bi kooku nga enu moy hakim bi kooku nga enu moy wa mahattan li kulli taalibi rifdin kooku mooy wàccuwaay ci képp koo xam ne da ngaa am soxla wa tabibin li kulli qalbin saqimi ki nga enu moy saafaraay bépp xol bu feebar xam nga loolu mooy mbëggeel loolu mooy mbëggeel bu ñu duggee ci wax ci loolu daf ñuy yóbbu ñu génn ci lañ doon dem waaye ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal تلي شيخ سرين باي واخ باي في سا ومحتا لكل طالب رفد يا واي واتي واي كيب كو ام حاجو كون نون نيب نيو نان اك حاجو يي يي نيت نيو نين اك حاجو يي بريزيدان ني نكوي بيغل دي بيغل مبولم مبولومي دي بيغل نيب تي تيواي سرين بي nga xamne bu tewé مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه مو تيو ني نكوي ييرم صاح تي جوتاي بي واي مبغيلم گيم ام تي باي ndax duhut ne daf ko topp rek ngir baayam la waaye daf ko bëgg ngir sëriñam la di ko xidma ngir loolu mbëggeel googu moo royaat ci mbooleem toppam baay mi googu moo ci baayam Cheikh Sëriñ Mbay ba muy fàttali ci oto bi mbaa fàttewu leen ne moom lañ tuddee bés bi mbëggeel googu moo royaat ci bëgg réew mi mbëggeel googu moo royaat ci ñaan yi muy ñaan ñu ngi koy jox rajo bi mu ñaan heure bii nga xam ne dëgg-dëgg mooy heure yi nangu ñaan ñu bu ñu waxee benn laa ilaha illa allah si ahmad sukari ji toog naag ay nit ñiy wax bana jant bi sona mu ne nañ wax laa ilaha illa allah ñi wax ko boobaa ñi bàyyi sëriñ bi mu euh, noppalu ñi jox ko mu ñaan ñépp wax amin ñi dellu ànd ak yëkkatigu daraja ak sipeeku mbooleem bakkaat mu ngi nii teew ak i rakkam cheikh mohamadul qarashi cheikh mohamadul wax na ñu ngi nuyu saas Moustapha Gueye waaye ñu ngi nuyu Chérif Cheikh Ahmed Tidiane euh, ibn euh, Seyd El Hadi Cheikh Tidiane ibn Cheikh euh, Mouhamed El Hadj Mouhamed Zeynabu ak rakkam mu ngi dend ak moom suñu nijaay Baye Mahmoud ñu ngi nuyu jagle waa kër maam Serigne mbay ñi nga xam ne bés yi bàyyi yëpp seen bés la waaye bés bi dañ ko tànn rek tuddeeaat ko waaye bés yëpp seen bés la asalaamaaleykum Serigne bi kon nga ñaan.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 السلامة والعافية في ديننا وفي طريقتنا وفي سائر حركاتنا وسكناتنا وفي كل أعمالنا وفي سنغالنا نصرنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة ما يصفون برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان